ولا غفر جيجل لا يغفر دنا جيجل غفران اك جيجل كفر ودنا يغفر دنا ود كفران اك ود كون فون لان تيغ نو مستر ثلاثي فعالت من نون ذهب من يذهب من ذهاب اقدم نجح ادمنا ينجح دنا ادم نجاح اقدم فسد يقنا يفسد دنا يق فساد اك يق صلاح باحنا يصلح دنا باح صلاح اك باح nafida jeex na yan fadu dana jeex nafaadun ak jeex fi aal tamit ci tëggini la comme nakaxa takk na yan kaxu dana takk nikaaxun ak takk qaama taxaw na yaquumu dana taxaw qiyaamun ak taxaw saama woor na yasuumu dana woor siyaamun ak woor aaba dellu na yauubu dana dellu iyaabun ak dellu fu aal tamit noonu la comme saala laaj na yasalu dana laaj suaalun ak laaj daa woona wala ñaan na yeddoo dana ñaan duwaaw ak ñaan mazaxa kaf na mooy mbóosóor na mooy kaf yam zaxu dana mbóosóor muzaaxun ak kaf saala sëqat na yasulu <clears throat> dana sëqat soaalun ak sëqat zukki ma sojloo nañ ko yus kamu danañ ko sojloo moom moom ñu li majur la zukaamun ak soj yi tekki jàngoro dañuy ñëw ci faalun ci ëpp faalatun comme nazufa set na yanzufu dana set nazaafatun ak set fasuxa fasaana yafsuxu dana fasaa fasaaxatun ak fasaa daxuma rëy na yadxumu dana rëy daxaamatun ak rëy zarufa tedd na yadrufu dana tedd zaraafatun ak tedd fiaalatun tamit noonu la comme kataba bind na yaktubu dana bind kitaabatun ak bind qaraa jàng na yaqraw dana jàng qiraatun ak jàng abada jaamu na yaabudu dana jaamu ibaadatun ak saana wattu na yasuunu dana wattu siyaanatun ak wattu talaa jàng na yatlu dana jàng tilaawatun ak jàng zaara ziyaare na dana ziyaare ziyaaratun ak ziyaar <coughs> comme kariha sib na yakrahu dana sib karahiyatun ak sib alina feeñal na yaalumu dana feeñal alaaniyatun ak feeñal faamulun tamit tamit ci xeeti masdar yi la qabila nangu na yaqbal dana nangu qabulun ak nangu wali en xiir na xiir mooy bëgg na affaire bi bëgg bu ëpp yow la dana xiir walu walu un ak xiir faamulun tamit ci la bokk comme xaraja génn na yaxruju dana génn xurujun ak génn ركع ركون يركع دنا ركون ركون ak rukon lazima taqoo na yelzamu dana taqoo luzumun ak taqoo xadaa xëy na yaxdu dana xëy xuduwun ak xëy fawulatun tamit ci la comme sahula yomb na yasul dana yomb suhulatun ak yomb saxuba jafe na yasubu dana jafe suxubatun ak jafe aduba neex na yaxdubu dana neex xudubatun ak neex failun tamit ci la comme ran na sone na yarinu dana sone raninun ak sone an na bind na xam ngeen bind ya innu dana bindi aninun ak bindi saxara ngexel na yasfuru dana ngexel ak mooy mooy fasi sab yi ñu sab raxala laxas na mooy dem na yarxalu dana laxas lu bëri min afaali ci fenlu yi ak saru lu ëpp min mastarin ci benn mastar dana gis fenlu bu am lu ëpp benn mastar شان يعني يبري سن مصدر دا فاي بري يذكر دين تدو المصدر مصدر بعد الفعل قلنا فعل منصوبا دل النسب مصدر مم نيار دنج كو نسب مم نيي دكو رفا على انه مم مفعول مطلق لا بو نيوي قلنا فعل دنج كو نسب مو نيك مفعول مطلق نيكي ردي غرم نير دا دا غرم ردان ولا رداء ولا ردوان ولا مدات لي يب مصدر ردي لا سمع دغنا يسمو دغ سمعا ولا سماعا boo gën a irab naan mafoolu mutlax la mansuubun wala nga ne masdar la mansuubun awzaanu jami taksir peese jamu taksir jamu taksir ala qismayni ñaari xaaj la jamu xilla ak jamu kasra jamu xilla mooy mbooloo mu tuuti mi jamu kasra mbooloo mu bëri mu ne fa jamu xilla yadul lay tegtal ala salaasati ko ëpp ila la mooy diggante trois ba yoo xam ne ni gisee rek xamal ni jamu la léeg-léegi def ko jiw si jamu kasra jamu ba dix la wa jamul kasra nag yadul day tegtal foo xaa asra lu ëpp dix ilaa fu mu yem nag moom diis jëm kaw la wa yastaamal danañ jëfandikoo kullun képp minu maas ñoom ñaar fii mawdil axiri ci barabu keneen ka majaasan ci majaas léeg-léegi am tëggin boo xam ne tëgginu jamu xilla la ñu ne mu si jamu kasra am tëggin tëgginu jamu kasra ñu ne mu si jamu xilla ba waaye majaas la tëgginu jamu xilla yi mooy afalun afaalun afilatun fialatun yii daal foo ko fekk rek xamal ne jamu xilla moo si josaan bëriwul حرف بين عرف من يعني أحرف أي حرف شهر وير من يعني أشهر أي وير <coughs> نجم بدو من يعني أنجم أي بدو عين بت من أعين أي بت وجه كرم أو جون أي كرم كف تنك أو كف أي تنك خمال الذي كنت ترى بديس لك بريو أفعال تمنكم حين أبون رسين أعناب أي رسين ثوب يري أثواب أي يري sayfun jaase asyaafun ay jaase xuflun xomb ak ay xomb yooyu kuraa badis la ci cosaan donc ci ka asawaabal xamal leen lay jox yére bëriwul ëppul diis afilatun comme raxiifun mburu ñu ne arxiifatun ay mburu amudun poto wala keno amidatun ay keno silahun gandaye aslihatun ay gandaye taamun ñam ati amatun ay ñam fi'latun comme fatan waxambaane fijetun ay waxambaane gulaamun ay xale xilmatun ay xale sabiyun ab xale sibiyatun ay xale kon af'alun af'alun af'ilatun fi'latun yooyu ñooy tegginu jamu xille yi ab niyati jam ju mooy kasra nag moom bëri na tëgg ni jamu kasra yi fonlun ci la bokk comme ahmar aji xonq bi dee jigéen xamra ñoom ñaar ñëpp seen jamu xumrul la moom mbooloo mu bëri la ama aji gumba am yaaw jigéen ji om mooy mbooloo ma ab yadu aji weex bay daaw jigéen ji weex bii dun buy dun la woon aslu cosaan li buy dun la woon waaye xam nga yàlla nangu damm jiitu ko su ko damm jiitoo yaa gi koy sotti waaw mu nekk buudu waaw ñu bëgg faa bàyyi yaa gi moo tax ñu kasra baagee muy biitu fuulun comme kitaabun téere kutubun ay téere ximaarun mbaam xumurun ay mbaam sariirun lal sururun ay lal jadidun lu bees jurudun yu bees rasulun yonantu rusulun ay yonantu madinatun dëkk mudunun ay dëkk saxifatun kaamil wala téere suxufun ay téere am na it fuaalun comme xurfatun saal xurafun ay saal suuratun saar suwar ay saar mudiyatun paaka mu ay paaka xariyatun dëkk quran ay dëkk leexetun sikkin luxaan ay sikkin kubra jigéen ju a mage kubar mbooloo mi jigéen ñi gën a mage أمن فعل فعل كم إبرة بين بوزة إبر إبرة قلم إبر أي قلم حجة أت حججون أي أت miriyatun werante miran ay werante <coughs> faalatun am na comme machine aji dox mushayatun la dox parce que mashiyun la woon mushayatun yaa googu nag dañ koy soppi alif ndax mu nekk mushaatun lay dox asloo saan li mushayatun la qaadin aji atte qudaatun qudayatun raamin aji saani rumaatun rumayatun la ak faalatun comme taalibun sàkkati xam-xam talabatun mbooloo muy sàkku xam-xam taalib mooy ku sàkku dara rek kaafirun aji weddi kafaratun faajirun kàccoor fajaratun ay kàccoor sayidun sang xam nga saada yo suudu la waaw la hmm? bu tëggee fay ilun dafa nekk sayid bi diw fayal woon ko def nekk sayyidun xam nga ne wax waaw yaa wax na ne buñ dajee bu njëkk di jiitu sukkoon waaw dañ koy sotti yaa ñu sotti waaw gi yaa ñaari yaa dañuy jël beneen satis beneen mooy sayyidun léegi kon boo ko tëggee faxalatun siin waaw daal ngeen parce que ñoo ñoo ci sànn muy sawadatun boo def nekkee sawadatun mooy ay sang waaw googu nag xam nga at nul fata te la ko jiitu dafa fata te soppi waa gi alif moo andi saadatun ay sang xam nga lu ma asloo ci saali mooy sawadatun baa'iun aji jaay baaxatun asloo ci saali parce que bayaaxa moo doon ci alif gi da yaa gi da ko saxal muy baaxa boo indi masdar mi bay indi jamo bi bayaaxatun koy tëgg faalatun léegi yaa gi moom it at nul fata nga def ko alif parce que falaa ko jiit mu alif baaxatu ay jaaykat faala ci dëgg nii la comme maridun aji way feebar xatilun kuñ rey xatla mbooloo muñ rey mayitun aji dee mawta mbooloo mu dee kuñ gaañ jarxa axmaq ku dofe xam xaa mbooloo dofe fialatun ci dëgg nii la bokk ganaar bu góor di fiilun ñay fiyelatun ay ñay xirdun golo xiladatun ay golo dubbun bukki dibabatun fu alun ci la bokk raakon aji rukon rukon mbooloo mu rukon saajirun aji sujjadun mbooloo mu sujjóot saayimun aji woor suwamun fu alun ci la bokk comme taalibun sàkko te xam-xam tullaabun raakibun aji war rukaabun qaariun aji jàng quraawun fi'aalun comme kabiratun aji mag wala kabirun seen jamu kibaaru sawbun yére siyaabun ay yére zibun till ziyaabun ay till jabalun doj jibaalun ay doj raqabatun ak ay baat samarun meññet simaarun ay meññet gadbaanu aji mer dégg xadbaanun aji mer wala gu jigéen xadba jigéen ju mer jamo bi xidaabun la jawaanun ku xiif góor la jawaan jigéen ju xiif jamo bi jiyaamun la xaayimun aji taxaw jamo bi xiyaamun mbooloo mu taxaw naayam naa ji nelaw ni yaamun way nelaw unsa jigéen inaasun ay jigéen a jaf ku làpp ay jaafun ñu làpp fawolun comme baytun kër buyutun ay kër najmun bidiw nujumun ay bidiw <coughs> asadun gaynde usudun ay gaynde zakarun góor zukurun ay góor saajidun aji sujood sujudun way sujood shaahidun aji seede shuhudun way seede comme fialaanun xulaamun xale xilmaanun ay xale naarun safara niiraanun ay safara jaarun dëkkandoor jiiraanun ay dëkkandoor taajun mbaxana buur tiijaanun ay mbaxana xaruufun xar xirfaanun ay xar xasaalun kéwal xislaanun ay kéwal akun mbokk ixwaanun ay mbokk nisootun jigéen niswaanun ay jigéen fon laanu comme saabun waxambaane subbaanu ay waxambaane raakibun aji war rukbaanun ay gawar aswadu ku ñuul suudaanu ñu ñuul ama gumba umyaanu ñu gumba zakarun góor zukuraanu ay góor xadiibun bant xutbaanun ay bant raxiifun mburu ruxfaanun ay mburu fon ci la bopp comme faqiirun ku ñàkk fuqaraaw ñu ñàkk baxiirun ku nay buxalaaw ñu nay karimun ku tedd kuramaaw ñu tedd jërisun toogaaleeg kat mooy ki toog yow julasaa ñu toog yow shaayirun waykat sonraay waykat xalifatun xalifa xulafaa way xalifa am na afin laaw tabibun docteur atibaa way docteur shadidun aji tat ashiddaa way tat azizun aji tedd aizaaw ñu tedd xawiyun aji dëgër aqwiyaaw ñu dëgër waliyun waliyu awliyaa ay waliyu xarniyun aji riis axniyaa ñu riis sadiqun xarin asdiqaa ay xarit am na fawaayin kaafiratun kéeféer bu jigéen kawaafir way weddi kaazibatun fenkat kawaazib ay fenkat dégg nga zawbaatun celliweer mooy ngelaw yu bëri zawaabiun ay celliweer taabiun tampon tawaabi ay tampon فارس أجور فص فارس نفائلكم رسالة لتر رسائل أي لتر صحيفة كامل صحائف أي كامل عجوز ماجر عجائز أي ماجر نفائلكم فتوى فتاوين أي أبي صحراء الله صحار أي الله أمنا فعلا يتيم جرم يتاما أي جرم أي من كنياك جكر أياما أي سالبتر taahirun aji laab taxaara laab am na fuala comme qadimun ku yàgg ku daamaa ñu yàgg asilun jarjar usaara ay jarjar kaslaanu aji tayal ku saala tayal sakraanu aji mandi sukaara way mandi nafaaniyun comme kursiyun sees karaasiyun ay sees buxtiyun kajug buxtu gërëmu buxtu baxaati xumriyun picc xeetu pitax la xamaariyu faayirun comme funduqun hôtel fanadiqu bursunun weex barasinun dégg nga boroomun ak banqaas rek eh, baraimu jawharun wurusu jawhar jawahiru am na faalilu xindiilun qanadilu mm, lampe mees xirtaasum kayit xaratis masuurun picc azafirun ay picc finjaanun kaas fanajinun ay kaas timmirun elef talaamiizun wala talaamiizatun ay élève ustaazun ustaaz asaatiizun wala asaatiizatun am na shibu faalil comme masjidun jàkk masajid xam nga li faalil mooy arab minbar manabir ay minbar afdal ku gën afaadilu ñu gën kooku afail la parce que alif am na shibu faalil comme usbu asaabi ay semaine afail la miftaaxun caabi mafaatixun ay caabi kooku mafaa'ilu la waaye daanaka jóg faalilu ak faalilu benn lay rek hada ay nurul islam astantu ma tawfiqi illa billah li tawfiqi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh